bu mu tax bu mu bu mu tee ñu gën a takk ndigg yi parce que avenir du Sénégal la du affaire nit du affaire koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on de combat Macky Sall keroog bi mu ne man doot nekkatuma candidat la ñu pareeg moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox amadu Ba wallaahi yéen xamu leen Amadou Ba Sénégalais yi question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mënee yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a woteel kooku maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliardu Amadou Ba yi jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu kon loolu rek doy na ñu ne kii mal war lu mun a nekk président réew vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógeek du Sénégalais déedéet Sénégalais la fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du sénégalais rek gënuma koo nekk sénégalais te it ñëpp jóge ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricain lañu ay sénégalais ngi dund feneen ñeneen a ngi dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam sénégalais la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn. bu ñu stigmatisé kenn loolu baaxul suñuy natt nañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est am na compétence yi. ren nag premier question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew. xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaar yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon. ñi ko gis gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor làmmiñam di wax nee na ñun lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaana Amadou Ba mënuñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf na <laughs> xam na ko jiite na direction générale des impôts mayor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bindu ko ay milliards mu laal ko bëgg ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow moom xam na te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi balaa may dee ñu ne compétence compétence su lan expérience expérience su lan randal alal réew mi kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga ti nga dem ci même rangeen bi rek la ñuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew mi mi ngi en danger dañ ñoo rax ba ana ñan ñoo leen rax ñun ñi neewoon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu gi sànni ci biti ab terroriste di nga ko génne nii ana ñooñu rax kii gëmul tarixa kii gëm wax waxu picc yooyu ñu mat tey moom la ñu jël bu koo def ci joomaay manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toogi mais ñuy wax ay waxu tappale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communiqué bi nga xam ne ñaari président yi génne woon nañ ko du le fait ñu wax nañu def li nañu def lii mais le fekk ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y de des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accorduñu sénégalais yëpp jóg sénégalais yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ñu ne seen gannaaw di leen financé ak ay terrorisme ak yooyu nañu respecter sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen dugal sax ci yenn yi il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats nag kon nañu concentré wu ci l'essentiel le plus grand danger qui gert le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp na lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génne FDS yi ñu ne parce que élection bu ñu xasee bañee joxe nañu score rek ñun ñëpp xam nañu ni c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions là te responsabilité la moom mooy président de la république kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am waaye li fi mu jaar ba egsi fii tout sa trajectoire loolu la lu voyé naxante jënd fii jënd fële foofu la yaakaar ni mun na koo jaar ba dégg monsieur le président de la république moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se bi incha allah dañ koy gagner di ngeen dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection et au premier tour man ah, loolu laa gëm ma daanele nag damay bañ a nag duma candidat bi dama bëri wax waaye dama leen namoon maa leen rawoon ma daanele waaw merci beaucoup ma daanele fi ma war a daanele ndax version français bi sax duma ko def damay bàyyi président wax fi may daanelee mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit yeen kese léeg-léeg kenn ku ne ci ñun dina am ay seytaaneem muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax ay être humain la ñun dong nag di nga nekk situation yoo xam ne way est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn du ko dénkaane ndangam li ñu di ñëw di wax ko defee soo wéetee ne auzu billahi mina sheytaani rajim parce que bu ko may rek